yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallam alaa sayyidinaa Muhammadin wa aalihi wa sahbihi wa sallam tasliiman alhamdulillaahi rabbil aalamiin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam di jaajëfal xaadimu rasul euh, ci li nga wax noonu ñu ngi rafetlu bu baax kàddu yi euh, ama ñuy def dara ñu dellu ñaanal Cheikh Moustapha Massamba yàlla doole ay leeram fa mu ne ak yërmandeem ku njëgalam ndax kàddu yi ndax euh, barab bi bi liggéey bi di tàmbali alhamdulilah rabbil alamin ci ñi ko tàmbali woon ci la bokk kon bu yàlla mayee bu ngi leen ci ba suñu borom ñëw ko dogalam ngeen continuer di fedd di kóllëre googee Euh, ba tax ñun tam ñu ñëw àndandoo ma ànd ak samay rakk njaboot gi yëpp ñëw fekke si ko tekk sama wet sëñ Abdou Rassakh sëriñ Xaasim sëriñ Basiru euh, sëriñ Falilu kon loolu mooy wane ni euh, la ngeen jàppoon ci moom ba mu fi nekk yéen a ngi koy wala di ko jàpp ci ak njabootam kon njaboot gi yaa ngi di ànd ak yéen ci loolu waxtu wu ne te di ko rafetlu bu baax a baax di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu gën koo yàggal te gën koo rafetal bu loolu jàllee nag lii moom yëg-yëg bi ñi si bi ñëpp am rek moom lañ ci am euh, xol bu sedd xel mu dal ndax euh, Sëriñ euh, Tuubaa dafa xam ne laaw barkat yi bu fekkee ne dañoo wax ne mooy xaadimu rasul ñu gis lu mel ni daan am ca Makka ak Medina ñu dox ba di ko gis ci urmu sëriñ bi loolu day wane ni liñ koy wooyee mën na ko te doon te doon na ko loolu sax day mel ne boo ko xoolee fii la tàmbalee ci dëkk bi ci jumaay Tuubaa ji waaye dafa mel ni mi ngi law di yaatu ci dëkk bi kon dafa mel ne lu sëri lu nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek dana nekk ci sëriñ bi lu nekk ci dëkk ci dëkk ci dëkkam yooyu itam dana ñëw ci dëkkam sëriñ bi kon ñi ñi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu yàgg ñu yàggal nu fi bañ yàgg koo fekkee yàgg koo taxawee di ko ànd ak yéen te lépp lu ñu ci def rek mu yiw ak barke yaayi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke Seexna Seex Ahmadu Bamba assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد